mbokk yi nuyu naa leen képp ku wax ne loi d'amnistie bi pour Ousmane Sonko la pour Pastef ak détenu politique yi waxoo dëgg madame la ministre dama bëgg nga wax samay mbokk député ak askan wi ne président Macky Sall bu bëggee génnee détenu politique yi mën na def lu ñuy woowee abandon de charge dama bëgg nga wax bi euh, askanu Sénégal ne président Macky Sall moom miy tëj injustement arbitrairement kii di président Ousmane Sonko bu ko bëggee génnee mën na def abandon des charges madame la ministre dama bëgg nga wax askan bi ne président Macky Sall moom mii nga xam ne dafa xañ arbitrairement injustement Ousmane Sonko ses droits d'être candidat te du dëgg du yoon président Macky Sall mën na def li ñuy woowee modification de l'article L 57 du code électoral te proposition de loi boo xam ne depuis 7 mars 2023 kenn xoolu ko kenn et personne ne s'en est offusqué personne ou presque ne s'en est offusqué la ministre loolu nga war a wax président Macky Sall loolu nga war a wax askanu Sénégal ne kon waaw mën nañ génn mais du amnistie rek moo am pour mu génn léegi nag dama bëgg madame la ministre nga wax askan wi ne lii tax président Macky Sall jaarul ci abandon des charges ak modification article L57 du code électoral mu jaar ci amnistie c'est parce que mu moy le parrain des tortionnaires moom mooy le parrain des assassins moom mooy le parrain de ñi nga xam ne ñoo faat góor nit yi moom doomam sax ñu ngi koy tudd ci recruter ay nervi en réalité loi bii du pour Ousmane Sonko du pour Pastef du pour askan wi du pour détenus politiques yi en réalité c'est pour président Macky Sall ay mbokkam ay xaritam ak góor ak jigéen mu nga xam ne moom la doon jëfandikoo pour torturer askanu Sénégal pour rey askanu Sénégal c'est ça la vérité parce que waru leen wax askanu Sénégal bi ne pour dab li mu bëgg amnistie rek moo fi nekk am na leneen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 2 avril 2024 terminus Macky day dem mu neex ko day dem mu dégager lii askan yu mooy victoire des patriotes dès le premier tour lii askan yu wax mooy libérer les détenus politiques libérer le candidat Bassirou Diomaye justice justice pour les blessés les assassinés et les torturés Modou Baragaï suivi de Mansour Kébé.